ñu ñëw ci du duñ dem te waxuñoo ak yow ci Saint-Valentin ndax gis nañ ne anticiper nga ko doonte ginnaaw suba la ah rouge noir bi. décortiquer na ko. waaw fête des rek. waaw sama euh, tay comme j'aime couture ñaw ko. waaw voilà may profité waale di gërëm. Euh, sama sama sama sama doom moo ñëw lii. sa doom waaw muy Pape Abdou. Pape Abdou donc di ko ñaanal borom Pikine. Mhm. Ah, ah, ak. Abdou Touré sama frère. Mhm. Abdou doomu ndeyu Lamine. Mhm. Abdou borom Caaroy. Mhm. ah kii jóge Pikine kii jóge Caaroy kon xam nga ne. benn la ñoom ñu day day metti donc bu dul woon ñoom. Ah, ma sol ah. ñoom ñoo def lii. ma def sama noir. daal def sama daal bu rouge anticiper rek. Ah, sa rakk yi sa sa doom yi ñiy bëggante. waaw conseil boo leen di jox mais jox leen conseil. waaw maa ngi jox conseil waaw. <laughs> des fois nga nopp ku la noppul. Mhm. des koo xamante ni lijjanti wala sax. dëgg la xam nga euh, ñuy may waxaat tamit. Mm, waaw ñu gën a bàyyante mm-hmm. parce que dafa fragile. Mm-hmm. man du ma jàpp que ni bu 14 février jotee rek mooy Saint-Valentin. Mm-hmm. pour man nit ki ak ki nga bëgg tous les jours yéen ngi dund seen amour. yéen ngi dund seen Saint-Valentin. kon xale yi na nekk bàyyi xel ci ki la bëgg ndax bëgg ki nga bëgg. ak bëgg ki la bëgg dafa doy waar. bu ngeen bëggantee rek mhm. yow moom yaa ngi koy dund ndax gis nañ rouge noir bi yaa ngi koy dund fi mu nii daa mel ni ah, fekk ay ati ati amin voilà moo tax mu réew xam nga dina ma takkal or moo tax mu réew buy dem liggéeyi ma xujja da koy yóbbaale anta teg la ci wetam nag di dawal nga koy xool mu neex a neex a neex a neex a neex a neex bilaay baayu ndaw nag maa la wayal lii bilaay ana baayu amet maa la wayal lii baayu papa suñu duppee moom lañu tontoo maam jal mbub jal caam jal ma ca ay rek jal mu neex maa xolal ma xujo mbub nag konob mu nanguwaay mm. dëkk bi toj na